ñu ngi dalal ak mbégte mu rëy euh, Mamadou kase directeur général SICAP SA bokk itam ci task force républicaine ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu tey bi. Euh, ñi ngi lay sant Fatou ci dalal bi nga ñu dalal ci euh, maanaam jataay bu am solo bi muy jataayu matinalu seen seen rajo ba pare nag boole ci di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu. di la sargal te di la sant. Mm-hmm. alors débat ñetteelu mandat ñëwaat na ginnaaw bi président Macky Sall sekkee waxtaan ak waa RFI ak France 24 wante taxul yëf yi leer est-ce que nag yaakaaroon ni jot na ñu wax askan wi moom président lan la nar ñu weesu débat boobu mu daal di jeex. waa xam nga man moom du ci man ngay jëlee président wax euh, euh, dem ndeyjoor man may dem càmmoñ ndax euh, yàlla moo def man maa choisir def politique. te ba may choisir def politique dama tànn alliance pour la république bokk ci ànd ak président Macky Sall euh, ñu am nag lu ñuy doxee ndax boo duggee ci biir politique mooy maanaam lenn ci li nga xamante ne mooy sa sañu bopp euh, da ngay koy jël maanaam am loo ci wàññi euh, ngir quand même ñi nga xamante ne ñoom ñooy say nawle nga bokk ak ñoom ci politique bi ngeen di wa xàccandoo di dóorandoo seen baat tamit di li nga xamante ne mooy baat bu bokk yemale te mu bañ a te mu digg dóomu saa su président dafa am lu mu wax ci wàllu boobu maanaam la mu wax dafa mel ne man maa ko wax. Hmm. jàppal rek ne moom xalaatam ak xelam ak la mu xelli euh, ci kanamu askan wi euh, nekk lii dana ci tontu euh, ca bu jotee maanaam man ca loolu laa d'accord. Hmm. mais yow yaakaar nga ni moom dina sàmmoonte ak kàddoom bi mu waxoon ne du def ñetteelu màndaa ah man daal ci li ma la mën a wax mooy mosuma ko gis mu teg kàddoom te sàmmontewul ak moom. waaye sax nag li ñu koy laaj ci li ëpp ci li nga xamante ne mooy toogaayam ak tooginam ak taxawaayam euh, mooy euh, maanaam mu sàmm ak li nga xamante ne mooy charte réew mi euh, man daal li may ñaan moom mooy la muy xalaat ak la muy def te mu leer ñu ne dañ cee war a ànd ak moom ñun ndax ñun moom la ñu gëm ci wàllu politique bu boobaa mu doon loo xamante ne day méngoog charte réew mi te loolu awma ci benn sikki sàkk ne noonu lay demee d'accord wax na itam ne euh, premier ministre euh, bi nga xam ni wax nañu delloo si at poste bi moom ci boppam tànn na ko ba nuppi yow kan nga yaakaar ni mooy nekk euh, premier ministre bu bu Sénégal ginnaaw local yi. waaw bu ma ci amee yaakaar tamit xam naa ne duma ko wax mbaa du fii laa koy waxee ndax jàpp naa ne aussi président li tax ñu fal ko bokk na ci mu ñuy wutal ay jëwriñ yoo xamante ne ñooy ànd ak ñoom di liggéey ndax loolu mooy mooy wàllam te man tànn ñu ma pour loolu moom la ñu tànn pour loolu. ñaareel ba mooy am na ci lu mu wax lu am solo nee na euh, ki nga xamante ne moom la nekk jëwriñ ju njëkk ji euh, nar ko jàppale ci liggéey bi euh, loole ci biir boppam maanaam xam na kan la ba noppi waaye fekk maanaam xaatimul li nga xamante ne mooy dogal bi jàpp na ne moom amagul jëwriñ ju ju mag ba léegi te loolu yaakaar naa neex naa dégg lu lu lu lu neex a dégg la parce que xalaat bu rafet la xalaat bu am solo la xalaat bu. buy bu bu bu yemb la boo xamante ne euh, xel mu baax mu ne war na koo mën a dégg waaye du man maay toog fii naan la diwa war a mën a nekk premier ministre wala diwa yi nekk premier ministre loolu du sama du sama cër. Mm-hmm. moom cëram la moo ko moom cër la boo xamante ne cër bu am solo la ci li nga xamante ne moom la ñu ngàll ci ndoddam euh, yaakaar naa ne euh, am nañ yaakaar ne dana tànn ki war ndax ba mu fi nekkee 2012 ba tey xaajul seenul. seetul toujours ay ki nga xamante ne moo gën a politique mbaa yooyu moom day xool ki nga xamante ne moom la war a mën a àndal liggéey ci njariñu Sénégal mu def ko boo ko xoolee 2012 kam tànnoon fekk na ne nekkul woon sax ak moom politique sax donc loolu tamit euh, xel mu rafet la tànn na koo xamante ne euh, euh, jigéen la comme yéen nga xamante ne ku xarañ la Amina Touré muy liggéey ak moom Mahammed Boun Abdallah Dionne moo ci topp gis nañu la nga xamante ne noonu la engagé woon ci wetam nekk nit koo xamante ne li ñor président rek moo ko ñor li ñor Sénégal rek moo ko ñor kon am na nañu yaakaar ne bu waree tànnaat euh, du du du du du faay euh, parce que saa su ne rek euh, dafa tànn koo xamante ne ku baax la yow mi sax Fatou Thiam <laughs> xëy na mën na na laa a tànn. ndax yow it citoyen te am nga xam-xam. waaw ce que tamit yaa ngi séentu Aminata Touré moom nga tudd ak ku mel ni Abdoulaye Daouda Diallo ñu ngi leen siy tudd ak itam ñeneen nax ñeneen ama du Ba yaakaar nga ni xëy na mën naa bañ a génn ñooñu. man aw ma ku ma ciy séentu man ku ñu président indil rek. jàpp naa ne def na ndogalam te bu boobaa danañ ko ànd jàppale ko ngir mission bi nga xamante ne mooy mission am ci lu ñu ca mën akus néew ñu jàppale ko ngir mu réussir ñun loolu mooy suñu rôle. Euh, yéen task force républicaine bi nga bokk yéen a fi euh, jaayoon askan wi fast track bi muy dindi poste premier ministre bi ngeen yëf yi day day tax mu gën a gaaw est-ce que nag dëgg-dëgg jàpp ngeen yëf yi dox na bi ñu dindee premier ministre bi sinon lu tax ñu indiwaat ko. waaw booba xam nga président dafa fekk mu am tamit jot ju mat joo xamante ne euh, da koy consacré euh, wàllu woow maanaam gouvernance bi ci boppam ba tax na jàppoon na ni soxlawul sax ku koy jàppale ci wàll boobu noonu moom ci boppam mën na ko defal boppam te nag boo gisee BRT ak ñoom BRT yi projet yi ni muy gaawee ni muy yëngatoo ci biir Ndakaaru nga xam ne am na lu mu lu mu impulsé boo gisee ne TER bi nga xamante ne euh, am nañu yaakaar ne décembre bii nii balaa muy jeex euh, dana daw bokk na ci lu ko gaawal boo xoolee tey jii nii euh, tali yi parce que yéen souvent nit ñi aussi ci Ndakaaru rek la nekk mel na Ndakaaru rek a fi am waaye boo xoolee tali bu mel ne euh, Tamba Goudiri Bakel nga xamante ne tey tronson bi jóge Tamba dem ba Goudiri yemb na ak yeneen ak yeneen maanaam boo ko xoolee président wax dëgg yàlla. ca ba mu dindee post boobu noonu impulsé action gouvernementale bi moom ci boppam euh, di doxal euh, am naa yaakaar ne am na lu mu gaawal lu mu baral. Mm. waaw te am na solo. kon daal fast track bi dox na. waaw loolu de mooy sama xalaat man. d'accord candidat nga woon ci mairie bu Tambacounda loolu lañ la doon dégg ngay wax ginnaaw gi biñ defee investiture yi ñu yóbbu la ci euh, conseil départemental nga nekk fa candidat amoo ci mbetteel tuuti. non man awma ci benn mbetteel xam nga man boo daan dégg sama wax dama la daan wax fu ñu la investir ci wàllu collectivité euh, maanaam que mu doon mairie wala conseil départemental sama xëy nag man sama xel mu gàtt dafa maa yemale woon rek ci mairie euh, ndax booba xam naa sama métier urbaniste euh, tax na man territoire bi nga xamante ne mooy gox yu kawe yi nekkoon li nga xamante ne jàppoon naa ne moo doon sama territoire d'expérimentation man sax dafa daan fàtteloo ne aménagiste laa te aménagiste moom wax dëgg yàlla boo ko xoolee nekk na lu gën a yaatu loo xamante ne euh, tey jii nii moom moo gën a méngoo ak liñ ma jox muy wàllu euh, dem xëccoo pour euh, mbirum département waaye daal man li ma doon li ma jàpp mooy res laa doon wut ñu booleel ma ca xëtër booleel ma ca Grèce booleel ma ca fàllare sax ak tànk maanaam euh, kon jàpp naa ne lañu ma jox euh, gën na duuf ci nag wi nga xamante ne nii euh, man la ma ca doon sàkku gën naa ndaw. alors opposition bi nee na fépp foo xam ne seeni liste dañ ko faa dàq élection du fa am ci jàmm wala sax du am yéen waa majorité task force républicaine naka ngeen déggee boobu dànkaafu wala boobu menace. non xam nga man dama jàpp ne opposition ñoom saa su ne genre menace yooyu la ñuy def ñoom daal affaire taal. affaire u violence affaire u ñàkk jàmm euh, maanaam daal li muy génn ci seen gémmiñ bëri na lool mais man jàpp naa ne tuuti nañu ñoom ci yàq li nga xamante ne euh, processus démocratique la bu ñu construire depuis 1960 muy suñu indépendance ba tey euh, mu ñu teg fi ku mel ne Macky Sall nga xamante ne du seetaan lool du seetaan démocratie bi di nërmeelu ci loxoom maanaam du mujjee puso bi mu réer loolu leer na yaakaar naa ne ku nekk am nga sa ay droit waaye aussi dafa am loo xamante ne danga ko warloo ak réew mi warloo ko sartu réew mi warloo ko li nga xamante ne moom mooy yoon bi ne ci réew mi waaw bu ñu la daanee nag da nga koy nangu metti na euh, parce que da ngay politique da ngay wuti waaye bu beneen yoonee nga gën a defaraat sa ngem ba gën a defaraat sa taxawaay ngir nga méngoo ak yoon ak charte yi nga xamante ne euh, moom la ñu teg man loolu mooy sama gis-gis waaye taxaw naan ay euh, comme ñun jëluñu suñu ay liste fii élection li fi am ak loolu man jàpp naa ne ñooñu tuuti nañu Euh, pour tere euh, ci biir territoire bi foo xamante ne ay élection dafa war am ñu doxal fa loo xamante ne dana doon lu lu lu méngowul ak li nga xamante ne moom la yoon tëral parce que jàpp naa ne état am na boobu autorité. Mhm. ñoom nag dañu jàpp ne yëf yi tëddeewul njaaxanaay ndax sax bi nga xamee ni dàq nañu liste yi ba cour d'appel ñëw euh, dàq loolee jox leen dëgg décision yooyu appliqué wuñ ko yemuñu ci waaye gis nañu préfet ak sous-préfet dem def euh, pourvoi en cassation est-ce que jàpp nga ni tam loola jaroon na ko ndax mun nañu woon rek bàyyi doxal décision yi ngir ay élection am ci jàmm. waaw xam nga mbàjj mi boo rek waaye dafa am benn moment boo xamante ne da ngay da da ngay da ngay da ngay def lu digg dóomu loo xamante ne nii euh, du am xaaji du am seen doo ci indi parparloo mm. parce que mooy yaakaar ne mooy tax nga nga nga nga yaakaar ne ñii nga xamante ne ñoom dañoo tànn ne politique guñu dañoo tànn nekk ci administration nekk ci magistrature euh, nekk ci ay pàcc yoo xamante ne nii daleen di soril lépp loo xamante ne dafa laal ci wàllu politique ñooñu nga yaakaar nañ yow yaa leen gën a bëgg réew mi wala yow ci sa bopp yaa leen gën a am patriotisme loolu du xel euh, il faut ñu joxante confiance tuuti euh, ñooñu noonu ay ay ay ay ay administrateur civil lañu ay magistrat lañu euh, ñoom ñoo choisir waat ci nekk sous serment pour liggéeyal seen réew ci wàll boo xamante ne du wàll politique yow yaa choisir engagement politique waaye dafa am ay yoon te ñoom ñoo ko war a respecté lu donc ñoom ñoo la ko mën a wax xam nga du ma du président Macky Sall moo wàcc ne la euh, ñii seen liste de forclos wala Mamadou Kassé dem fële naan non non non euh, ñii euh, def déposé wuñu heure wala joxe wuñu tel papier ña fa nekk ñoo ko ñoo ñoo ko def te loolu aussi mooy seen rôle bu ñu gisee loo xamante ne doxul ndonte waa nguur gi la wala waa kujje gi ne leen mais mbir mi doxul te nii lii mooy atte bi wala daan bi nga xamante ne moom moo topp ci loolu loolu nag da koy mën a nangu wala nga ñàkk ko nangu dama jàpp ne ñoom bëgg nañoo jiite réew mi mais nanguwuñu charte yi nga xamante ne moo taxaw ci réew mi te loolu aussi amul euh, amul cohérence maanaam. Hmm. fitna tàmbalee xeeñ ci élection yi gis nañu sax balay campagne bi tàmbali gox yenn yi mel ni Ziguinchor fitna yëngu jugoon na fa ñuy ragal ne loola bu campagne bi jotee dana gën a tàng euh, fitna aussi généralisé wu presque ci stade yi ak euh, ci ci arène yi euh, lan nga jàpp ne tey état moom la war a am comme taxawaay vraiment bu dëgër ba xëy na yenn yi ñuy tiit duñu ci àgg ndax tey ñu bari ci réew mi tiit nañu ci fitna gi bu wéyee fu mu mën a yóbbu réew mi. xam nga ñetti pàcc am na ci mooy waxtaan dina ci am. Euh, mooy maanaam conscientiser nit ñi fexe ba waxtaan ak ñoom wax leen ñu gën a xam aussi li nga xamante ne mooy seen taxawaay euh, ñaareel ba moom mooy aussi bu demee ba yëf yi xaw a jéggi dayoo aussi mooy fermeté mooy maanaam euh, dogal bi ñu bi bi état war a jël rek mu jël ko ku ci ku ñu ci war a daan ñu daan la ku ñu ci war a tere ñu tere la ku ñu ci war a déglu ñu déglu ku ñu ci war a téye ñu téye la parce que loolu aussi moom mooy tax autorité wu état. Euh, mën na nekk loo xamante ne kenn du ko lam-lamee parce que bis bu autorité état wàññeekoo wala état mënatul assurer yow sa kaaraange ak sama kaaraange. Mm-hmm. sama kaaraange ak sama kaaraange yi la nga xamante ne mooy sama moomeel bu boobaa nag dañuy nërmeelu waaw te nag euh, violence yi nga xamante ne moo am mooy maanaam fitna yi nga xamante ne ñu ngi koy indi ci wàllu stade ci ay wàllu université ci wàllu mouvement syndical ci wàllu front social ci wàllu politique. Euh, loolu lu ñu war a saytu la c'est-à-dire que nit ki mën nga manifester ne d'accord loo mën nga euh, manifester ne yow li ñu teg nii yow ànduloo ci waaye waruloo ko def euh, ci ci kaw ne da ngay fitnaal wala da ngay yàq wala yooyu te bu boobaa li président wax ne que état dana jouer rôle am jusqu'au loolu nag booy rôle lu état mooy taxaw ba nga xamante ne yow Fatou am fa nga nekk di nga jàpp ne. am nga kaaraange ndax am nga état bu foor bu taxaw ba nga xamante ne ku bëgg yàq sa liggéey moom mu dal ci ko d'accord ñu waxaat ci wàllu politique dem Tamba foofu xiiroo ngaayoo amoon na ci seen biir euh, ñu njortu ne xëy na amoon na lum mu jotee élection yi ndax ginnaaw investiture yi fi dal na. waaw gën naa dal tuuti waaye gën nañu xam aussi ku nekk fa nga féete parce que loolu coow li bëri yëpp c'est parce que euh, xëccoo ak politique ñoo ànd wala politique ak xëccoo ñoo ànd. parce que ku nekk dangay gis juróom benn nit ñu bëgg benn mbir boo xamante ne bu ñu attee kenn ci ci loxo yi kenn nit lay daje comme ni ñu ko waxee woon sànq di ngis ñu bañ ngis ñu nangu. Mm. waaw ñi nangu nag man souvent par exemple su dama naan président chaque fois man mettre naa leen à l'aise lu ngeen décider rek ci mbir moomu danaa fexe discipline de parti. ak la ma décidé ne moo doon sama wàccuwaay ak APR doon sama wàccuwaay ak président de la doon sama wàccuwaay ak ak ak Benno Bokk Yaakaar dama koy def xëy na la ma damay damay wan wanaasuwaat la nga xamante ne euh, xëy na moo ma naqadi euh, pour mën a ànd ak intere général bi mooy maanaam njëriñ ñëpp pour que ñu mën a chaque fois li ñu bëgg a sumb bëgg cee jàppale président mu doon loo xamante ne nii dafay yemb waaye am na ñu ko dul gisee noonu. am na ñoo xamante ne tey dañ la naan non non tout sauf Mamadou Kassé parce que bu dee Mamadou Kassé man d'accord wu ma machin nangam sangam te yooyu war nañ cee gën a ñaaxaat nit ñi pour ñu xam lan mooy politique ak lan mooy engagement politique ñu xam ne ñun ay frères lañu ay camarades de parti lañu et que suñu intérêt yi intérêt personnel yi lu ndaw la par rapport ak li nga xamante ne moom la ñu war a représenter pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu yaakaar ak ñoo ñuy seetaan. Euh, seen partie ci boppam euh, structuré wul euh, nee nañu organisé na wante structuré wul est-ce que jotul tey ngeen yaakaar ñu taxawal ko ba mu dëgër def ci ay bànqaas yu wóor balay ngeen di jeexal seen régime ndax président Macky Sall bu dee jotuwul beneen mandat bi bu mujj ñu bari nag ñu ngi tiital tasaaroo seen parti bu fekkente ni structuré wuñ ko loola lu ci yow sa position. waaw oh, d'abord bon gis na que yéen moom. Euh, am na yu bëri yoo xamante ne da ngeen ci am ay nga ne bon bii mooy bu mu jeg yooyu yëpp man man xamu man dugguma ci débat yooyu maanaam ah, comme troisième mandat bi leeragul kay léegi daal li ma la mën a wax mooy mooy lenn mooy boo gisee nit ñi ñuy structuré wu nii wala ñuy organisé wu wala ñuy fexe nu ñu nu ñu nu ñu nu ñu dajalee yenn yi jéem a xool yan pàcc nu ñuy joxee kii nuñu lii ak ñu joxee këlalale loolu yëpp bu dee parti politique wala coalition benn finalité la am mooy bu ngeen demee di présenter ay projet ci citoyens yi ñu def leen waaye ñun structuration bi nga xamante ne moom la ñëpp bëgg ñu def ko euh, organisation bi ñu yor tax na déjà la parti politique namm yëpp ñun lañ koy am c'est maanaam 2012 ba tey perte ñu benn élection yëpp lañ gagné. ci kaw organisation. waaw mais tubaab dana wax on ne change pas un système qui gañ wala une équipe qui gagne donc euh, loolu jar naa xalaat ndax réellement ñun lan la ñuy wuti. est-ce que dañoo bëgg ay intérêt wu ñaar wala ñetti nit simplement wala intérêt général bi la ñuy seet président Macky Sall ku xarañ la ci politique. man de ni muy manager appareil am gis naa ci suma bopp su ma nee gis naa ci suma bopp mooy euh, autorité am na ci partage am na ci intérêt général am na ci même su fekkee ne politique ci li muy mujjee structuration lay doon. Hmm. ak démocratie locale. waaye loolu aussi ñun am nañu intelligence ba tax ne au niveau local. bu essentiel bi taxawee maanaam bu ne këtt na jonn ñu war a dajaloo ñun ñëpp pour jéem a xeex benn mbir dañ ci àndandoo xeex ko ngir intérêt parti bi ngir intérêt président ak ngir intérêt coalition donc mooy intérêt citoyen yi rek. d'accord kon daal soxlawu leen structuration. non waxuma ne soxlawuñ ko mais en tout cas terewuñu ñu am finalité bi ñu tax a jóg mooy gagner ay élections ak. am confiance su citoyen leer na Mamadou Kassé ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tey yow yaa euh, directeur général SICAP SA bokk itam ci task force républicaine di cellule communication bi benn bokk yaakaar taxawal. macha allah Fatou maa ngi lay sant bu baax ci invitation bi di ci profiter aussi nag vraiment di nuyu comme d'habitude waa Tamba ñi nga xamante ne sama diggante ak ñoom mbirum xol la ak mbirum xel. donc am na ñu yaakaar ne xol ak xel fu mu daje normalement dama cay topp.